asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara di nuyu waa Cees gépp di nuyu itam kilifa yi xam ne ñoom lañ fekk fii ci dëkk bi di jees di leen jot li seenub ziyaara xam naa dañuy tënk rek foofu kàddu yi ñu wax leen tuuti ci communication Mafatihul Bichri nan lay doxee ci wàllum communication xam naa nag ab tënk lay leen benn bu ci nekk rek dañ ci tënk tënk boo xam ne dana méngoo temps bi ñu jox euh, bi ci jiitu mooy comme li Serigne Cheikh Fall doon wax léegi ci daara ji muy daara ji dafa am historique mi ngi tàmbali depuis 2003 2003 ba 2006 mën nañu diggante boobu yépp amu ci lenn loo amu ci benn activité boo xamante ni daara ji doon na ko def du doon tëju di liggéey. nga xam ne durant ñetti at yooyu yëpp dafa doon tër liggéey muy conservatoire bi di tënk ci ay daaj di liggéey liggéey boo xamante ni itam liggéey bu mucc ayib la ci loolu itam bi ñu demee ba 2006 ci la conservatoire kuréel bi euh, daal di génne album bi gën a bi njëkk ci Daara Mafaatihul Bichri muy 2006 booba xam naa ne euh, xay na CD yi bëriwul woon booba ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon defee ci cassette yi nga xam ne moom mooy xewoon bu njëkk. ci la commencé nag di liggéey ci wàllum communication nga xam ne daanaka benn commission rek moo amoon muy audiovisuel boo xam ni dafay def ay enregistrement nga xam ne mbooleem prestation yi kuréel yi def yépp dañ koy enregistré di ko denc ba 2008 ci la ñuy génnee ñaareelu album bi man naa ne li tàmbalee 2008 nag ci la ñu commencé nag di génnee mbooleem prestation yi xam ne kuréel bi mu ngi koy def moo xam ay jotaay yoo xam ne dañ fay toog jàng moo xam màggalu war a wala déedéet ci lañ commencé nag commission boobu di di audiovisuel boobu di def ay enregistrement di commencé di ko génne nag ci génn googu nag ci la daara ji di commencé di yëkkati ku ndànk-ndànk nit ñi di ko commencé xam ndànk-ndànk ci daara ji ba atam 2010 ci la nag mën nañ ne ci la ci la gën a yaatoo ci diggante yooyu nga xam ne. ci lañ daar yi taxaw nag daal di fa yéene dooleel communication te itam euh, njàngam mi bokk na ci li nga xam ne ñu bëree bëri moo leen fa indi te mbooloo moom fu ñu dajee xëy na liggéey Serigne Touba dañ daan amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ci la yeneen i xalaat ak yeneen i mébét muy ñu tënk ay organisation tënk ay yeneen i commission yoo xamante bu ñëwee mbooloo moo leen moo tënk dem itam ba liggéey bi yëmbatu rek ci njàngum xasida ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni daara ji mi ciy dox yooyu yëpp nag day aaje ab liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib lay doon ci wàllum communication bi ci lañ taxawal na commune commission bi yaatal ko ci fànn yu bëree bëree bëree bëri muy comme li ñu wax léegi muy euh, organigramme bi nga xam ne moom moo war a am ci communication ci commission yi comme ni ko tënkee bureau national communication tam noonu lañ amee bureau national boo xamante ni moom mooy tënk mboolem daara yi yëpp. nga xam ne information bu war a génn ci daara ju mu mën di doon dañ koy indi ci national bi su ko defee ñu jubbanti ci wala ñu bàyyeeku noonu mu jàll foofu lañuy tënkee ci wàllum communication bi moo taxit lépp lu ñu gis rek ci wàllum communication ci bëri dañ koy rafetlu waaye itam ci suuf dañ tey liggéey liggéey boo xamante liggéey bu mucc ayib lay doon ci nga xam ne daara ju ne am na ñoo xam ne ñoom ñoo féetewoo wet googu wàllu communication sunu commission nag dañ ko séddale ci ay ñetti gox ñetti ñetti pàcc muy ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllum réseaux sociaux yi ak ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllum sonorisation ak audiovisuel te noonu lañ ko tënkee am na ñoo xam ne ñoom ñooy saytu lépp loo xam ne communication daf koy bind muy taxi wala affiche boo xam ne dafa war a jàll tasaaroo ci àdduna ñoo xam ne itam dañuy dañ ñoom ñooy bind texte yooyu di ko corriger ba nga xamee itam du am benn jum-jum ñooy itam ci biir commission boobu ci lañ bokk nga xam ne saa ñu waree def dara rek par exemple événement bu jubsee wala màggal danañ toog évaluer xool lan ak lañ lañ soxla ak lan ak lañ lañ am pour maanaam événement boobu ñu mën koo jàll ci jàmm ak salaam ñu mën koo jàll itam ci anam boo xam ne anam bu mucc ayib lay doon kon euh, ñett yooyu moom mooy comité bi beneen bi ci mooy préparation événement euh, xam nga ne daara yi itam. bis yi ñetti bis la am ci bis yoo xamante ni moom mooy ay bisam mooy bisu daara ji muy bis bi ñuy jublu muy màggalu tubaa ak li nga xam ne itam moo di poroxaan ak ziar bi nga xam ne daara ji mi ngi koy defal xalif général de Mouride nga xam ne ku fi nekkal Serigne tubaa at mu jot daara yi dañuy dañuy dajaloo ci mbooleem daara yëpp ñëw ziare si ah, ba ca déggal muy ñeenteel ba ñeent la muy gàmm gi nga xam ne itam ñu ngi koy defee Touba ci kër sëñ Moustapha Mouhamadan benn bu ci nekk itam day am ay wàccaay yu am solo yoo xamante ni commission bi day daje euh, da ciy jiitu mooy yëgal gi parce que yëgale bokkut ak membre bi ni ngay communiquer ak moom ki nga xam ne nekk na membre bu pare du bokk ak ki nga xam ne nekkagul membre yooyu yëpp dañ koy bàyyi xel bu baax a baax di ko suuraale nga xam ne événement bu jub see da gis ay xeetu affice yoo xamante ni commission bi dañ koy defar di ko distribuer loolu itam bokk na ci li nga xam ne dimbale ci ñun surtout ci ci côté réseaux sociaux yi. bu loolu jàllee itam bu ñëwee lu mel na màggal dañuy euh, euh, prestation yi am ci ci ci baas bi te kenn ku ne xam ne ku wax njàngum xasida moom na bisiri euh, daara ju nekk day ay kuréel xam ne bu ñu demee màggal kuréel yu bëree bëri ñooy toog xam ne ay waxtooy waxtu waxtu la ñuy jàng foofu itam dañ fay waajal ay sonorisation yoo xamante ni sonorisation yu mucc ayib lay doon te itam doon yoo xamante yu méngoo ak jamono yi doon foofu itam loolu itam ci liggéeyu communication yoo xam ne lépp lu ngeen ci gis rek ngeen xam ne itam loolu ci liggéeyu communication lay doon daanaka bu ma tënkee ci wàllum communication bi daanaka ñetti pàcc yooyu rek moom moo ci moom moo ci moom moo ci am moo ci am solo mooy organigramme bi ak li nga xamante moom mooy ni ñuy préparer événement yi ak li nga xam ne itam moom mooy euh, euh, li nga xam ne moom lañ noon la ñuy archiver li nga xam ne itam mooy archive archive daara ji muy ay image am na ci yu bëree bëri yoon am dañ koy gis du génn gut waaye yooyu dañ koy archiver di ko denc xëy na jamono dana ñëw ñu mën ko soxla ji kon daanaka dañuy tënk foofu rek kaddu gi incha allah ñu joxaat sëñ Ousmane su ko defee bu kaddu gi ñëwaatee ñun ñu àggaloo ko wasalaamaaleykum.